li nga xam ne mooy actualité muy mbirum Serigne Khadim Bousso ma ciy ndokkeel doomam bu baax def na ci ab sorti yi bokki bu mu jugut moom doomam jooju moo ne sa Seck moo reylu sëriñ Khadim Bousso te ku ne xam na ne Serigne Khadim Bousso sëtub sëriñ Touba la sëtub Soxna Jaar la sëriñ Serigne Bousso bi la kon nag may laaj ñi nga xam ne ñoo sant Mbàkke ak Bousso lan mooy seen taxawaay ci loolu ginnaaw ba loolu jàllee tamit may laaj tamit ba léegi njaboot gi nga xam ne njabootu sëriñ Saliou lañ di ay dongaam yi nga xam ne moo leen defar jàngal leen yar leen man mii ma bokk ci ñun jàngal yar ma Idriss Seck bi mu ñëwee Touba dem bay gaarwaale sëriñ bi ne an nasaafatu minal iman set dafa bokk ci gëm yàlla mel ne kon day am lu muy tuumaal sëriñ bi loolu lépp nekk ay jikko yoo xam ne di jikko yu rafet du jikko yu jullit ma leen laaj nag yéen dongay Serigne Saliou yi nga xam ne Serigne Saliou leen defar yar leen lan mooy taxawaay ci loolu. beneen point bi nga xam ne nag moom laay tëje mbir mi mooy mbirum Abdoulaye Wade nga xam ne dafa ñëw Sénégal uniquement ngir taal réew mi nee na ginnaaw bi nga xamee ne Serigne Mouhamadul Mountakha ñaan na ko ne ko na jàmm am ci réew mu lànkal ko loolu ne day taal réewum Sénégal ma leen xamal ne leen loolu defu ko ci coobaree boppam jabaram yi fi di ab di ab nasaraan moo ko sant loolu ci ay information yu leer la daf koo xamal ne ko nan dem Sénégal nga jaxase réew ma ndax awma lu dul maag yow amul lu dul ñaari doom te nekkul Sénégal kon nan dem nga taal réew ma ndax yow sag sag dee jot na faatu nga ba pare donte sax taal ga sabakka nda cey def sax jar na ko ma leen di laaj nag ki nga xam ne yitteem jëpp mooy taal am réew ak ki nga xam ne yitteem jëpp mooy rey koo xam ne ci deretu Sëriñ Tuubaa la bokk ndax ñooñu jar nañoo topp seen ginnaaw loolu moo tax mu bëgg yéen Sénégalais yëpp ak taali Sëriñ Tuubaa yëpp ngeen di jàngat mbir bu baax te bàyyi ci xel ndax Idrissa sekk dafa bari yum jëf yoo xam ne ci yoonu murit maanaam mu ne su ko misaal kenn mënu ko li ndax bu fekkee dafa bokk ci tarixab tijaan reconnaître leen faaliwu leen ba mu neexu mu ñëw ne ab murit la kon loolu moo leen xam ne jikkoy naafeq la ci ab naafeq ku ne xam na li ci suñu borom subhaanahu wa taala wax ma leen xamal yéen ndaw yi réew mi bu leen nangu kenn ku taal seenum réew ndax ñi nga xam ne ñoo leen di xiirtal ngeen taal réew mi amatuñ dara lu ñuy dàq ci réewum Sénégal parce que pare nañ fi li leen koy xamal mooy bi nu jeexalee ñoom ñëpp dañoo dem tëdd bitim réew bàyyi leen réew mi kon réew mi bu neexee seenum réew la bu mettee seenum réew la te yéenay ndaw yi ëllëg yi nga xam ni yéen la réew mi yaakaar kon na ngeen gën a takkuwaat ràññee xam fi ngeen teg seen tànk bu baax manipulation yi bari na trop lu ne ñu ngi koy def ngir féewale tarixa yi ci bu leen nangu loolu ndax amuñ lu dul lii mooy li nga xam ne fan yii yëpp ñu ngi koy bëgg a wax mais danoo nekkoon ci ay activités yoo xam ne mënuñ ko woon a dagg waaye yàlla dogal loola jeex na moo tax ñu ne woon nag danañ ko def ngir laay biir Sénégal yi yëpp ak taalibi Serigne Touba yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah